bu baax di ko jox waayam di wax ni Balla Issa Boury Mbacke Balla ak Maram sëtt Serigne Abdou Lahad Mbacke borom Touba Belal yow fa nga toll lappili saw fas keneen ku fa tolloon jafono du ko doy liggéey te teewu ko daan bu ngeen déggul yooyu wolof mooy fa nga toll dugal accélérateur jógi jógi accélérateur oto bi gën a daw keneen ku fa tolloon point mort nga def oto bi ba la woon maîtriser oto bi te teewu koo këpp yal na la yàlla defal jàmm ci barke Serigne Saliou ndax yow sa maam daa liggéey ci yoonu lislaam rëy muy Serigne Abdou Lahad Mbacké xanaa xamoo yéene nekk borom a jay France sa maam ko ñi ngi xaar ci loolu am na fi ñu bari ñoo xam ne nii amuñu koy tudd oh, oh. te ay jeune la mat na noo voté tamit baara tamit ñu ñaan tamit nga taxaw ci loolu ba ñoom ñëpp nañ fi 18 ans 22 ans xale yi taxaw ñëpp xaaj yëpp kenn amul kayit waaw ndax tamit su fekkee danoo bëgg a nekk ci réew moo xam ne dafa war a développé danoo bëgg baar li ma wax ko yaa ngi koy dégg. li ko rëdd li ko rëdd. waaw danoo bëgg jeunes yi nga taxaw seen kayit yi ndax xaaj bi yëpp am na ñoo xam ne amuñu kayit. li ko rëdd jege ko waaw. am na ñoo xam ne amuñu kayit. te muy askanu lawbe loolu muy ferte si biir lawbe yi jàngoro lawbe yi nag bëri na feebaru lawbe bëri na amuñu fuñ ko jooyee amuñu fuñ ko tiise yow mu yàlla dogal nga dem jigéen jige président Macky Sall te ngay toog ak moom di guddeeg moom di bëccëg ak moom yow leen mën a tiis suñu soxla soxla yi lawbe lenn la kon nu ko sëriñ ja waxe sànq rek sunu mag ñi seen bis jàll na seen yoon jàll na dañ lay ñaanal Baara Sow lii ñu yaakaar ki maki salla fas yéene fal Macky Sall fas yéene koo may koo may majorité bu doy sëkk ñoo ngi ñaan ci yàlla yow bu la ci kenn jiitu lii nga yéene yal nañ ko yeggale yal nañ dund ba ñu lay fekk pale ndax liggéey nga ko te jëfe nga ko te waxe nga ko ndax ji nga ko Macky Sall loolu demb la Côte d'Ivoire metti woon na démb te yow rek la woon ak Macky Sall kon nag ba mu neexee fàttiwu la waaye yow tamit bàyyi woo Macky Sall bàyyi woo say bokk ñoo ngi lay ñaanal gudd fan ak wér ñaan yàlla bu keroog la 31 juillet yàlla nañ dégg wiiw Macky Sall ca kanam loolu rek la ñaan wasalaam maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di jiital ci nuyoo bi Serigne Cheikhouna Mbacké mi fi toog te taxawaayam ci wetu Bara Sow doon lu war ndax maamam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou dafa waxoon dafa defoon seede bu rafet ci law ci askanu lawbe dafa ne woon ngeen may ñu ku déglu yal na la Serigne Touba dafa defoon seede bu rafet ci askanu lawbe moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul dafa ne woon ñett yi jar naa roy ci lawbe muy bugg sa làkk teel a sëy ak fu la sa teraanga fekk nga dëkk fa kon nag Lawbe yàgg naa ay nit ñu baax ay nitu yàlla di am ci ñoom seede yu rafet suñu maam El Hadj Omar Foutiyou Tall dafa ne woow waayu yeede Haalpulaar tigi ko labbo mooy ki ñu mën a wax Haalpulaar dëgg mooy Lawbe ndax Lawbe foo ko fekk day fonk cosaanam waaye baara mii li mu am tey jomb ko ndax baara man sama digganteeg moom démb la yàlla daf maa yóbbu Côte d'Ivoire ma dem fa doon fa def benn conférence ma jóge fa ñëw ñu ne ma dañoo bëgg nga ñëw jàngale ji université Houphouët-Boigny xaw ma ci fan laay dem far yàlla wanale ma baara mu am ñu ma booleel ma dem kër googu ñu jox ma teraanga may jëflante ak ñoom booba ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi di sant sunu ñaari waajur di ñaanal sunu waajuru jigéen bi aussi mu yàgg fi te di sant sunu sëriñ sëriñ Moustapha bu sëñ Abdou Fata bu sëñ Cheikh Gaynde Fatma mu yàgg fi di sant kilifa yi fi toog di si jiital sëñ Seexuna bu sëñ Siidi bu sëriñ Abdoulaat di sant sëñ Baaxe Buso bu ñëwee ci lawbe yi war na fee ñëw bu ñëwul ci lawbe yi war na fee ñëw parce que lawbe yi ak sëñ Mbàkke Buso bu yàgg la ginnaaw loolu may sant la fédération nationale lawbe di Sénégal et de la diaspora lu xam ne fukki fan ak ñaar fépp fu kër lawbe nekk ci Touba teg nañ fa seen tànk damay bañ a lim rek te duma matal sama nijaay Thierno Fall jiite ko Ndaam sama nijaay Abdou sama nijaay Aliou Koura Mati Diop Ndey Sow Khadim Aziz vraiment bu ma limee rek du ma matal ñu taxaw taxawaay bu rafet ak sëriñ ak sama nijaay Aliou Sow ñu def porte à porte wax ak nit ñi massifier nit ñi pour ñu mën a woteel président Macky Sall man dama ne woon du ma def meeting ñu ne ma kat baara namu nañ daje nammu nañu daje ma ne leen mitin amul solo li am solo mooy le 31 ñëpp wote ji ñu am majorité assemblée nationale gañe Touba ñu ne nag dañoo namante il faut que ñu gisee gën a ñaaxante looloo tax mitin bi am sëñ bi. ginnaaw loolu may sant association yi nekk fii yëpp ASC xàll ba yeneen association yi yëpp muy jeunes yi di sant sama jigéen Fat Jenn aussi di sant mbootaay yi ci koñ bi di sant chef de quartier bi Baye Gueye di sant imam yi di sant bàyyi lay mi nga xam ne moo jiite moolkat yi di sant képp koo xam ne rek yaa ngi si koñ bi nga taxaw jàpp si mitin bi bi loolu amee sëriñ bi yow sunu kilifa nga sunu sëriñ nga parce que sunu sëriñ yaay waajuram mu sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Fatah Gaynde Fatma ñu ngi lay jaajëfal parce que mitin bii jàpp nga si bu baax parce que feccum liir bu neexee yaay ja jàpp si mbagg yi ñu bokk présidence sa bureau tëjaloo ko kenn bu ñu ñëwee say taalibe lañ dañuy ngay ubbi sa bureau ñu toog di waxtaan nga ñuy conseiller si lépp loo xam ne luy jëme président Macky Sall si kanam ñu gën a fonk aussi suñu diine toujours dañu koy fàttali kon jërëjëf sëriñ bi Mbacke Balla di wax ne bi loolu paasee lawbe yi coordonnateur yépp mënuma leen a fay parce que sëñ bi fii dafa feesoon dell xam nga ne ñii duñu ñuy taw bi bëri na ñu toog di xaar ba 23 heures xam nga ne ñii dinañ wote ji fi ñu dëkk fépp ci biir Touba sori na di nuyu sama nijaay béy di Dioum professeur di nuyu sama papa Cheikh Sow di sant Mali artiste di sant sama aaw buuru këram Daba Sow parce que ma ma koy takk fukki at ak ñett la am maa ko yar Côte d'Ivoire te soxna politicien dafa war a yaatu te loolu nekk na si moom kalaasu ndaam gi dañuy tourné ji ba si yàgg ne ñu daal añ lañ bëgg ñu toggal leen añ automatiquement <laughs> Baye Sall seen taxawaay rafet na yéen ñëpp vraiment Idda Jaamoodu staff bi seen taxawaay rafet na mais lépp sama nijaay Thierno Fall la ñun ñëpp moo ñu mag ba pare doon chef de quartier bu ndar xaaxaam sëñ Omar Bousso wóolu ko mu doon cordinateur fédération nationale lawbe di Sénégal fii si Touba ànd koog sunu yaay Mati jóob donc loolu lu am solo la mais nag sama waajur wu jigéen du ma ko passé parce que moo ñu teete moo ñu ñaanal moo ñu ñaax muy koo xam ne sama kër gii bi mu koy sanc benn néegu ñax la fi defoon ma ne ko yaay fii sori na lëndam na mu ne ma naa toog fii rek xaar la fi demal uti doole moo tax ma dem Côte d'Ivoire 1985 doon ndaw màgge fa musuma tux musuma naan parce que bu ma ko fàttalikoo rek dama xam ne dañ ma yónni te yàkkamti ma ba tax na lépp lu ma am si jom si moom la ñu koy ñaanal mu yàgg fa te wér wax ne nag ñu am lu ñu fàttali bu ñu amee majorité ba pare nañu jàppale lawbe yi si quota yi nga xam ne mooy bant bu dee bi nga xam ne dañ koy joxe ñu bàyyi Pël Fuuta yi ñu koy jox ñu koy jaayaat lawbe yi te sunu aar bi mu ngi bëgg a disparu parce que mënoo jënd barigo batt 9000 mbaa mil boo ko daggee ñeenti tuq kafe nga si am tuq bu ne nga jaay ko ñaar ñeent juróomi téeméer doo ci am dara moo tax ndaw yi fi nekk nangootuñoo yett bu yàggee aada ji day dem cosaan ji day dem kon doléance boobu sëñ bi ñu ngi la ko yóbbante si président Macky sàll bu ñuy joxati quota ñu jox leen ko muy garab yi nga xam ne garab yi wow la nekk si àll bi bu daay gi lakkee day yokk daay gi ñoom du ñu yett gar bant bu tooy parce que bant bu tooy boo ko yettee bu woowee day toj te yett muy toj loolu law bi bëgg ko kon ñi ngi doléance yi nag bëri na si orateur yi sëñ bi ñoom ñëpp jël nañ kàddu mais loolu ngeen wax lépp lenn mooy mën a tax mu am ñu am majorité assemblée nationale parce que habitation bu amee loolu du mën a sotti kon seeni doléance tënk naa ko mais man tamit dama leen di sas ngeen wote ji ñu gagné Touba gañee département bi am majorité ci Sénégal gi yëpp liste national bi yëpp jàll su boobaa seen doliance yëpp dinañ ko motale parce que olof Ndiaye nee na bala nga ne naam da nga fay nekk. ndaje mi neex na fecc yi neex na woy bi neex na comme commission yee coordonnateurs yi licencé nañ leen sëñ bi bëgg nañ suuru wat yi ñu am ay oto génn nit ñi ñu dem vote ji coordonnateur bu fi indi oto bu ne loolu la ñuy jàmbat bëgg nañu ay oto yoo xam ne danañ génn nit ñi ñu dem wote ji ñu bañ a tayel léegi nag bu ñu amee ndam ba pare dinañ ànd ak sëñ bi def tournée seeti leen jaajëfal leen remercier leen man nag dafa am loo xam ne dama koo seetlu parce que bi président mag sàll di ut réew mi dama defoon fii meeting mais dafa taw ba tooy tey ma defaat ko mu taw ba tooy kon nag am na ci yaakaar ne fam daa jaar lay jaar fii toujours buñ ci tàntee rek ngir président Macky Sall taw bi moo ñuy tëj comme signe boobu ñëwaat na rek damay sant yàlla subhanahu wa taala maay benn seul lawbe bu nekk pré présidentiel si Macky Sall loolu nag bu ma ko defalee lawbe yépp la ko defal du parce que dama see gën a rafet mbaa dama see ëpp xam-xam mbaa dama see ëpp njàng mais def koo def ngir lawbe yépp bu délégation amee sëñ bi des fois mooy jiite suñu délégation dama siy bokk ànd si kon jaajëfal leen ba président Macky sàll ñu ñaanal ko mu mën a àggale projet yi mu naan yépp ci Touba ak ci Sénégal pour Sénégal mën a jëm kanam parce que mu ngi liggéey te liggéeykat la ngeen bàyyi ñi ngeen xam ne dañuy wax di mbeleleli fitna la ñuy yëkkati da foog ñu rey nit ñi pour mën a am pouvoir il faut que ñu tuur deret pour mën a am pouvoir nit ki nag boo bëggee sa askan doo leen rey doo leen woow fu ñu leen di reye doo yee fitna parce que yàlla rëbb na ko yee fitna ñooñu nañ leen moytu yéen jeunesse bi la ñuy waxal jàppale leen le président Macky Sall am na ambition si yéen li mu def ngir jeunesse bi ñeenti président yi fi jaar yëpp kenn mësu ko fee def kon jàppale leen ko yu bañ a fëkk seen xel yi ngeen xam ne président Macky saal mooy il leen meilleur mooy meilleur président si Sénégal wasalaam jërë ngeen jëf. mbooloo moo xam ne dañoo takku nosu nekk ci genn buum mais ni mu wax am ay coordonnateur nga xam ne buñ àggee ci bisu élection jëflante ak ñoom dafa yomb. ndax coow lu coow lu bisu élection bi la mm-hmm. lii lépp ay wàccaay rek la moo tax li am solo mooy te toujours li bañ a fan yi mooy li ma leen di wax lépp lu ci waay weesu na ko takk sëpp ko neew say bu eggee ba ngeen dimanche kenn ku nekk ak mbooloo mi nekk sa ginnaaw ñu xam nu mu toll ñu jël ay kaar yu toll noonu jox leen ko nga yóbbu leen ñu wati ji nga delluwaale ñu ñibbi seen kër bu ñu demee ba 18 heures ñun ñëpp ñu dégg viiw le président Macky Sall française bi tàcc leen ko waay loolu moo tax liggéey ak méthode bi am solo te loolu mooy leen fekk ndax wax na ko ci discours am kon na ngeen xam ne kaar yi ngeen aajowoo ngi dem wote yi loolu bu soob yàlla danañ seq ay jéego luñ ci man danañu ko def du am kenn koo xam ne da nga soxla kaar su bis baa te doo ko am moom mu ngi nii bu dikkee lu mu soxla ci kàddu dañ ko ko jox mu joxaat leen ko ngeen dem vote ji dem toog seen i kër lépp ngeen def ko ci jàmm waaye leen nag mënu ci ñàkk wax ndax day li nga xam ne mooy li ñu sëriñ bi yabe ndax nee na lool la bëgg ci dëkk bi loolu la bëgg ci réew mi te ñun ci loolu ci lu ñu fas yéene tënku ndax ndigalu sëriñ bi moom lañuy ñuy jiital teg ko ci sunu kanam ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar loolu nag kenn ku ne gis na ne commencé nañu indi violence ci biir campagne électorale bi fii ci Touba ñu ngi commencé attaqué caravane yi benn bokk yaakaar di leen sànni ay xeer di leen tooñ plan ba nga xam ne moom la ñu laloon en 2017 ba yàq élection yi ba jaxase xale nit ñi ba ñu bare bari ñu mu ñu génn voté yi même plan bi la ñu amaat parce que xam na ne bu ñu ko defee à la loyale amuñu benn chance remporter élection yi loolu nag moo tax ma di leen yëpp yéen ñëpp na ngeen takk bu leen kenn mënal dara jàpp leen ci fi ngeen jàpp foofu la na ngeen yokk seen taxawaay li ngeen nekk na ngeen ci ne te bu leen ci kenn mën a jëlee bu ñu àggee ci bisu élection yi kenn ku nekk ci yéen na def élection bi élection boppam kenn ku nekk ci yéen na jàpp ne moo nekk ci bi kenn ku nekk ci yéen na jàpp ne moom moo nekk tête de liste su ngeen amee boobu ci biir centre de vote yi ci biir bureau de vote yi ci biti ak ci mbedd yi bu yal yàlla kenn du leen mën a dara parce que ñoom yaakaaruñu leen lu intimidation pour remporter élection yi parce que xam na ne amuñu benn chance su gagner ici à sëñ Baara yow ak ñu mel na yow il faut ngeen taxaw ci ñii nga àddal te ñu bare bari ma fekk ñi bi te def nekk rek doy sëkk na nga leen encadré parce que jigéen ñi buñ leen tiitalee dañuy arrière bu ngeen encadré nag gis naa ay jeunes yu bari jeunes yi ngeen di jël oto bu ngeen teg na am convoyeur boo xam ne mooy dugg ci biir oto bi jàngal nit ñi naka la ñuy voté bu ñu demee mu taxawu leen ba ñu voté bu ñu demee aussi bu mu nangu kenn di leen provoqué kenn di leen tooñ ngir di leen naqaral wala ngir en tout seen xol ba mu jur leneen. borom caq a moytu borom bàtt ma ngoo kon il faut ngeen encadrer nit ñi. waxtaan ak ñoom ñu xam fi ñu jëm xam nu ñu bëgg bu ñu xool lenn lu loolu te xam ne yoon lu ñu jël bu ñu wàcc lu ñu bëgg ñu ko am bu soobee yàlla parce que fii à chaque fois bu ñu ñàkkee élection ci piste élection lañ koy ñàkk ay facteurs yu bëree bëri moo ñu koy xañ lépp nag analyser nañ ko xam nañ ko te ren fas nañ jéenee jóg taxaw ci ba bu soobee yàlla loolu du am moom luy dakk lay doon kon sëñ Bara maa ngi lay félicité maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm lii nga def nii day mottali sa kóllëre ak le président de la république confiance bi mu am ci yow ba jërëb teg ci wetam jox la responsabilité li nga dajale fii dafay tegtal ne mérité nga confiance président de la république dafay tegtal ne yaakaar bi mu am ci aussi tasoo yaakaar jooju.